sëñ bi nuyu nañ waaw ñu lay fay bu baax a baax di leen ziar di ziar seen sët bi di leen jox bienvenue si si Achikori. maanaam wax sa tur rek. waaw Ousmane waaw kon ma xamul daanaka tur bi tur bee jiitu jëmm ji waaye bi Biagui lañ ma wax. waaw mi seen naa Ousmane lañ ma tuddee te daayir moo ma tudd sax waaw yaroo ci biir kër gi màggee ci bi kër juddoo ci biir kër gi. kon kon kon yi tuuti rek. yaay sunu baabu baabu laay baabul jannate yaay sunu baabu laay mooy sunu baabu laay baabul jannaay gisuñu yow gulul kenn mam borom daaru mooy jannate Mbàkke ñuulo loo yaay sunu baabu laay baabul jannate mat ga nay mat ga baay mat ga mam day boroom lépp luñ ci góobe nañ ko gar ñun borom daaro rek lañu am ragal féete day xañe wërsëg ñun borom daaru la am mooy sunu baabu laay yaay sunu baabu laay baabul jannatey. xol yëpp féexati na xol yëpp seddati na macha kon si loolu rek nañuy daal di lay poser question mooy sunu baabu laay baabu moo boobu mooy lan. waaw baabu laay moo leer la amoon naan Ousmane Bouna Fall doon Moussa loolu kalaamu. waa baabu laahi maanaam dafa nekk tur boo xam ne turu turu turu turu leer la comme naan Ousmane Mahfane waaw borom daaru nooré nii baabu maam Cerno Ibrahima Mbacke baabul janna baabul jannati muy baabu muridiya comme ni maam Cheikh Fall waaw ñu ne ko baabul laahi waaw boobu laaxi boobu nag fu mu jógee maanaam borom daara dafay kenn ci ko tedd ki doon baraaduraam waaw kenn nal ko tedd ki nekk ak moom ba doon noonu baabu laahi waaw baabu laahi maam leer la rek bu nekk ci moom bu jóge ci moom ñëw ci jaam yi man ñoo ma baabul janna mooy borom janna ci ñëpp. waaw kon loolu moo tax baabu laax fa la jógee. ñu gis ne saa yi suñu ñëwee si koor yi saag màggal la wala wala wala comme ni mu demee ni ñu gis la nga ànd ak aalu doy way baabu laay dooy lay way maam nga daal di bég ah ñëpp di la gis di kontaan xam ne carrément ñu ngi gis dëgg dëgg dëgg taalu bi. nu muy demee noonu. waaw xam nga comme la ko sëñ bi waxee maanaam xam nga ñun dañuy nekk doom ci kër gi. dañoo judd fekk suñuy waajur doon bi nekkoon nekkal ci ëttu Seydina waaw boo xoolee man sama waajur bu jigéen maanaam ñoom ñoo doon sikkar Seydina Ousmane mel ni soxla Rama maanaam di ko ñaanal mu guddi fi lool yàlla dëgëral ay taxawaayam sama waajur bu jigéen jooju sama waajur bu góor yàlla suuf seet ci moom maanaam ñoom ñoo doon cantal ñoo doon sikkar Seydina Ousmane ay suñu yaay yu bëri ay temps anta gël tappe yeneen jot soxna yi ci bëri ñoo xam ne maanaam ñii ñoo kon du man lii dama ko war a dama ko war a def bu ma ko deful dama ko war a def su ma ko defee dama ko war a def ndax ñun doom la ci sëñ ñu ay doomu xol ci sëñ bi lañ kon nii na mën a demee waaw ñun duñu ay gan ci kër gi duñu wàll yaan tamit waaw te ñun dañoo nekk moom sëñ bi fu ba muy méttee te ñii wii su ko moom démb waaw nekk moom sëñ bi juddoo moom nekkoon ak moom màgg ak moom mais nii mu demee te ma am nekkul tey man daanaka boo xoolee man ba mu juddoo ba léegi sax màggal sëriñ ci sëriñ laa nekk. lu mu munti demee si ndax loolu maam Mariam Seye ko wax ndax dam maam daal mos am toog maanaam gars yi demee mag maa yéen a ngi dem màggal xanaa xamu ne ku tedd bu bu bu xëyee Touba gon si Daaru ndax boobaa ñaari yool ngay am maam Mariam Seye doon wax loolu ndax ku tedd bu xëyee tuubaa day gon si Daaru siyaar si borom Daaru Moxti ndax dëkk ëtt bi ñu toll rawatina Chigori nga xam ne borom Daaru léppam fii la ko defee njaboot Sëñ Touba nekkoon fii Chigori moo doon Chigori ñu bëri dañ ko war a jëfar xam lan la borom daar bu tedd ki demee woon dénk ko njabootam mi ñu bëri ay détails la waaye maanaam ci góor yi dafa dénk jotoon njabootu Sëñ Tuubaa doon fi bay tarifee njabootam yi lu mu bay yónni ko tedd ki waaw kon lii maanaam patrimoine la lii cër la lii daf ci yoonu murit dafa am lu muy joué ci diggante ak borom daara ma teg ko Serigne Touba ndax dëkkub seet la. léegi moo waral turu sukkoor yi boobu. waaw bu njëkkoon cinkóori la doon wax turu turu pël la cinkóori waaw sukóori maanaam comme li ma wax sànq rek maanaam bërëbu leer la comme ni naan Touba xam nga Touba àjjana sukóori sukuran waaw sukóor yi dafa nekk man loo xam ne maanaam lii suñ borom di ko gërëm maanaam sa jubaa dafa bindoon ba ba muy gërëm ba muy gërëm ba muy gërëm cerno sukóor la ko fekk bind lettre ma ne ko bind lettre mu ne am ko mu yabal ne ko neel neel neel neel ceernoon ne ko suñu borom xamal ne ko maanaam dëkk boobu dëkk bu suuf suñu gërëm la. tuddee ko sukkuraan sukkoori sukkoori sukkoori maanaam dëkk loo xam ne maanaam bërëb bu la te loolu dañ ko suñu borom gërëm moo waral sukkoori mais bu njëkkoon kiñ kóor leen ko wax. ci góor yi loo xam ne maanaam di pël yi tuuri pël tuuru pël la woon waaw mënoon benn mënoon bërëb bu doy waar waaw te bërëb bi du ku ne fii dugg waaw ndax lu mu làmboo bari waaw du ñuy wax lépp nag waaye ñun ñi nga xam ne suñ ci juddu yaroo ci màgga ji mu waral maam ki nga xam ne mu ñëw doon la ko ci baayam ndax baayam lépp lu musaan wax maanaam riir baa ngi ñëw waaye maanaam lépp lu lu ñu fi war a def borom paaka bu ñëwee dina def a paakam muy waajee fi ne waaw doon lépp ci baayam nag. léegi nag tey nan nga jàngatee li nga xamante ne mooy waxtaanu maam. démb jouru màggal gi mu doon waxtaan bu am solo mu doon waxtaan boo xamante ni képp ku nit rek war nga déglu waxtaan boobu di ko jëfe waaw nee ne xam nga maanaam ku ku naan ni ku ràcce la si sa kanam mu dël la waaye lu lu ne fànk kenn du ko jeex dafa mat dafa mat kilifa dafa am dafa doon kilifa ku mat kilifa te ñun jamono ñuy toll nii ñun noonu la wër te lu ñuy wër ci koo xam ne maanaam dafa mat. doon guide spirituel bu wër doon loo xam ne mënoon ku dëggu koo xam ne maanaam day yee askan bi yee jeunesse bi du la wax lu lay du la wax loo xam ne maanaam lu lay neex wala looy kii lu yàlla santaane la lay wax maanaam nga nekk ci siraatal mustaqim nga du d'abord nga doon jullit te jullit boobu dafa am ni charte yu mu war loolu ma di ko seetlal di jàpp di julli di fonk say waajur waxtu julli nga dem julli d'abord fonk say waajur après moom loolu leen digal te Thierno maam maamam loolu loolu jàngal mu yoroon àqiqa yoroon ah, yoroon diine yoroon àqiqa Thierno lépp la boole woon waaw Baye Fall nag ñu koy ñu ñu koy junne naan Baye Fall comme ni muy wax rek ku ñu gis naan ñu cam mais affaire bi du foofu waaw Baye Fall dafa war a loolu toujours la ñuy wax xool lu positif nga nekk ci nekk sa liggéey teewul xëy ñu neex li nga war a nekk nga nekk ci waaw maam foofu lay maam côté boobu maam maanaam moo waral toujours discours am ñun loolu dañ ko yàgg ko dégg di ko déggaat dafa yàgg di ko wax. moo waral maanaam saa ne mu nii mu demee ndax nit des fois day dégg te loolu dafa dafay dafa néew loolu waaw. maanaam da ngay ci jëm sa boot di wane mën a mën a mën a mais du loolu waaw. te lu am solo mooy maanaam moom toujours da lay wax lu suñ suñ borom santaane di ko digal. nga def nekk ci te lépp lu mu am boo ñëwee mu bokk ak yow ñun loolu la soxla ci kilifa. waaw te kilifa te mën na ma te loolu la jeune loolu la jeune bi gën a soxla nga nekk ci tolof tolof nga ñëw boo ñëwee fekkoo fi mu dindi la bu la waxul jox la. wala mu wala mu orienté la ci keneen. waaw moo waral maanaam kii foo ñu jàppale ko waaw. te boo ñëwee tamit ci góor yi fii am comme lu koy wax amul noflaay boo ñëwee moom foofu ñu koy ñu koy gën a constaté mooy da nga koy fekk ci jumaa ji mu yor peel yor kii xam nga kooku ñu naan modèle de la jeunesse maam ni ko war a xool ci léppam moo tax ñun dañuy sant yàlla ndax toujours ñu dañuy xool ci réfé di am référence ci moom mu ñuy mu ñuy wan maanaam liggéey dafa am solo jaamu yàlla dafa am solo waxtu julli bu jotee nga dem julli nekk ci li war a nga dem liggéey waaw te loolu maanaam loolu moo tax jeunes yu bëri jàpp ko ndax du tricher te terre à rek moom du lay wan ay wan comme li muy wax nee na yéen ñi ñu yóbbu xam ne bu ñu bëggoon wàcc lu ñu wàcc ndax fi ñuy fi ngeen ñuy yóbbu la mais toujours nañu wax terre à terre wax ni àddina lu ñu war a jëriñ nekk si jamono bu ne ak lu muy lu muy àndal te jamono ji dafa doy waar boo xamul fooy teg si dànk rek comme ni nga koy waxee. da ngay dugg ci kàmm te buñ jëlee la xool problème la mais toujours da ngay xool lu la war nga nekk ci di moytu lu bari di ngay néew kàddu di néew maanaam xëy na ñun ku ci mel ni man xam ne porte porte de voix la bon nekk ci milieu kurla bi yàlla dañuy suturaal ba ci li ñu war a nekk ci milieu kurla bi lañ ci war a nekk duñ ci ci duñ ci wàññi duñ ci yokk ci li ñu war a rek lay nekk ñu bañ a tricher ne xam ne sëriñ bi moo ñu war la ñu def ko. te dañ ciy sant yàlla ndax bari nañ ñoo xam ne maanaam dañ ciy maanaam ab travers ñun lu ñu wax ci li ñuy gëm sëñ bi xam sëñ bi mooy kan du ñu nawloo du xool ci ñun du xool suñu comportement mais moom grâce à moom dañ koy sant bu baax ndax nii la war a comporté woon nii nga war a doxale ci lii nga war a nekk ndax moom boo ko toppee rek ci li nga war a di nga nekk di nga nekk droit chemin waaw moo tax man ay discours am toujours maanaam ni mu war a mel nag noonu la war a mel. waaw baax na disponible na yaatal na te foo ko njëkkee ñu ko seen ci moom muy bañ xam nga des fois mën nga ñëw ci kilifa xam nga kilifa moom toujours moo lay ubbil boppam lu ubbilu boppam doo doo mën doo ko ñemee te moom ñëw ubbil boppam ci ñëpp dèjà boo nee tëll bi ngay ñu ko seen ci moom mooy bañ. donc da ngay ñeme la sax dogguma la man sama papa da kaa bëgg lool bu ma waxee rek mu ne ma kooku borom rey borom rey yu neex yooyu ma ne ko foofu laa jóg. waaw mooy li moom dafa dafa neex bëgg. bu dul dara maanaam fu muy jëm jëm ak ci diggante entre nit fa lay ñëw andi ak yow sa diggante ak moom nit ak nit. am na solo kon dama lay bàyyi nga daal di tàggatoo rek suñu mbokku internet yi di seetaan. waaw di di di di di di di di sant yàlla bu baax. ndax loolu baayam da ko ñaanoon mu jóge ci membre masay muy maamam ju baax ja ci borom daara moxti di fii dafa am benn lieu lu muy représenté waaw maamam nag comme li ma waxoon sànq dafa am lu mu wax boo waral ci góor fii chaque année ñu ko fii màggale ndax ñu dañu am cër ñaar cër mu ci màggal yow lu màggal ñu ko xamul nag mais ñun ñoo xam ne dañuy nekk ci bëgg loolu di sant yàlla bu baax di di di di ñaanal jàmm ci réew mi di ñaanal ñëpp jàmm di wax sama moromu jeunes yi maanaam xool ñu jëmal kanam ne ci ñu bàyyi yenn détails yu bari am am solo ñu xool ci positif yu ne comme di ko sëñ bi waxee di ñaanal ñëpp jàmm ñaanal naa ñëpp di baalu ak ñépp waaw di wax borom daaru noré ni mu yàgg fi lool lool lool lool lool di ko ñaanal Mbàkke lu muy dund rek doyul te lu mu dund lépp lu lu muy gën di dund rek mu amoon njëriñ. waaw loolu laa laa ma wax di la ñaanal ak site boo xam ne mooy Rose euh, Sio Rio Rio Plus waaw nekk Tëngéej ngeen ay bëgg Cerno rawatina ngeen baax ba seen lépp ñëw si góor di la ñaanal site bi yàlla na yokk ci bor ci doole nóoree ni yokk bu yëg waaw man daal man daal bokk naa daal boobaa daal xam naa ne moom mbokk taalibe yëpp naa leen daal ñu abonné ci Rio Plus muy site internet bëgg Cerno gaa yi jàpp ci incha allah. waaw. mat nga ndey mat nga baay mat nga maam booy day boroom boroom borom moo baax.

borom daaru yow sa xol bi amul ki ñaan ko gis defal ko yërmande yow sa xol bi amul ki ñaan ko gis defal ko yërmande silise nga sel nga yow mat nga wala rëy lépp luñ ci góobe ko gar ñun borom daaroo rek la ñu am ragal féete day xàññe wërsëg ñun borom daaroo moom la ñu am ñu bu baax.